Cheikh euh, Konaté maa ngi lay nuyu. Ah, voilà Cheikh Konaté nga nekk euh, président de l' association des militaires libérés du Sénégal conseiller municipal ca Sakal candidat de la coalition Nafoore Sénégal déjà euh, campagne bi war a démarrer ci dimanche bile est ce que seen côté lépp yemb na pour démarrer campagne bi. waaw ñu ngi sant comme ni ma ko waxee bu baax rek ñu ngi sant yàlla bu baax ndax euh, jàpp naa ne bu fekkente ne am nga habitude dem ci population bi di waxtaan ak ñoom lu ci campagne di nemmeeku seen i seen i seen seen i jafe-jafe ci xalaat naka nga def ba indi ca saafara jàpp naa ne bu campagne jotee dem ca ci ñoom du doon loo xamante ne lu jafe la. Euh, ginnaaw ba nga xamante ne sax ñun suñu tête de liste bii ñuy wax euh, Amadou Ba nekk maire Missirah mooy tête de de la coalition Nafoore bi nga xamante ne moom nag ku ne xam na ko yàgg na ko xam ci. yëngu-yëngu ak jege ñi nga xamante ne ñoom ñooy les populations donc tey jamono ji ñu toll nii nag euh, wax dëgg yàlla delluwaat ci ñoom di leen euh, wax ne mbébét yi nga xamante ne moom la am boobu ba léegi te jotaguñu woon def ay élection élection jot nañ mbébét boobu noonu nag dañ bëggoon ngeen jàppale ñu si rek ngir ñu mën a ngir ñu mën a taxaw ci seen i ci seen i ci seen jafe-jafe. d' accord euh, naka nga gisee aussi euh, Cheikh euh, Konaté débat Sonko Amadou Ba parce que xam nga ni Ousmane Sonko moo invité Amadou Ba ci benn débat public contradictoire fi ñu toll nii nag mi ngi ci noonu PM Ousmane Sonko loolu la bëgg Amadou Ba bañul naka nga gisee débat boobu pour yow lan la mën a apporter sénégalais yi. bu dul gis leen ma. nii laa mel nii laa toll sama dayoon nii la mel nii la toll loolu moom jàpp naa ne lu am solo la ndax nag réew mi jàpp naa ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci réew mi di population jàpp naa ne ñoom soxla nañu di dégg ay weccante xalaat yu lu mel yoo xamante ne mën na am jeexital ci réew mi waaye nag ay de yoon bi nga xamante ne kuréel bi yor bi yor euh, wàll woowu noonu moom taxaw na gantal la li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy moom mooy jàkkaarloo boobu ndax man nag dama jàpp ne. kuréel bi gàntal bi mu ko gàntal sax dafa am solo parce que am solo bi mooy euh, fi mu amee jeexe jeexitalit mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ci ci ci ci ci ay ci ñiy jongante nekk ay tëddali jàpp naa ñoo ñoo ñëpp bu fekkente ne rek euh, ku ci nekk ñu sàmmook suñu ak suñu yeleef kenn ku ci nekk euh, <clears throat> n'est-ce pas nekk koo xamante ne nag tëddali si nga waaye am am li nga xamante ne moom mooy xalaat sa gis-gis ci jàpp naa ñoo ñëpp war nañ leen mën a boole ñu jéem a xool naka la ñu def ba ñu jàkkaarloo seen biir ñu xool waxtaan kenn ku ci nekk wax la nga xamante ne moom nga am ci mbébét moom nga amal réew yéene réew mi waaye buñ ca ci ñooñu ñëpp buñ ca jëlee ñaar rek tànn leen ca jàpp naa ne mbir mi dana xaw dana xaw a sooxee wala dana gàllugoo si daal Mhm. Euh, ñu gis ne aussi euh, petition lancé nañ ko contre nomination wu Samba Ndiaye ca poste PCA bu SNHLM mbir mi nag euh, jur coow lu bare bari patriote yi di attaqué ki nga xam ne moom mooy Samba Ndiaye parce que jàpp nañ ni ay jamono da doon attaqué Ousmane Sonko ci dossier Adji Sarr bu baax a baax noo gisee situation boobu Cheikh Konaté. situation bi daal dama ko dama ko dama ko natt ci ay mbir mbir ba ca njëkk mooy gis-gis ma ci am ci njëkk mooy. wane nañu ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi dénk ñi nga xamante ne ñoom lañ ci dénk yenn yenn yenn ndombo tànk yi jàpp naa ñoom dañuy jaawale sax ndombo tànk bi nga xamante ne moom mooy moom la réew yëpp bokk ak ndombo tànk bi nga xamante ne benn pàcc la boo xamante ne ñoom ñoo ko bokk muy seen parti politique te jàpp naa ne loolu dafa am leneen benn firnde bu ci am wane na ne ñoom seen wàllu bopp maanaam ñàkk wormaal euh, li nga xamante ne moom mooy suñu suñu suñu suñu suñu institution Euh, ku ci jiitu moom mooy le président de la république nga war ko weg lool war ko wormaal ba ka nga xamante ne ka jóge ci feneen wala bokk ci yow feneen war koo mën a wala mën a fekk ci weg bi nga ko weg waaye ñoom wane nañ également ne ñoom daanaka ñoom dañoo jàpp ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ñoo àndoon seen biir ñoom rek ñoo am xel ñoo am xalaat ngir doxal réew mi jof jàpp naa ñoom li ñu gis mooy amul benn citoyen sénégalais boo xamante ne bu fekk nga def politique ñàkk def politique waaye na nga ñàkk bokk ñoom gis rek ñoom jàpp nañ ne kooku warul am benn responsable ci réew mi warul mën a jël loxoom dugal ko ci réew mi pour ngir ngir ngir ngir a indi euh, xalaatam xelam ci li nga xamante ne moom mooy moom moom mooy moom mooy jafe-jafe solo mooy wan nañ ne carrément ñoom ci nomination bi tamit wan nañ ne ñoom seen i kaddu ak seen i jëf waroo na. Hmm. ndax ñoom dañ ne woon duñu am ki nga xamante ne moo nommé moom moo nekkoon seen candidat ci élection présidentielle yi. Hmm. moom lañ def ki nga xamante ne mooy élément ni jëwriñ bi moom tamit Euh, moom moom moom moom mooy moom mooy njiitu njiitu njiitu njiitu seen kuréel seen kuréel boobu di parti politique muy Pastef mm. waaye kon tey fi mu toll nii ñoom lan lañu war a mën a gëm ci ñoom waaye nag ay la yéen ñoom war ñoo bañ lii ndax ñoom ñàkk ñàkk koo war a mën a bañ weesuwul nga am Aminata Touré sa biir barki démb boo njaay nga dem jëli Déthié Fall yàggul dara dara dara nga jëli ko mu ñëw nga am ñoom ak docteur ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne Aminata Touré lu ñu fi yàqante wul ñoom seen biir waaye tey fi mu ne fay envoyé spécial la euh, ci euh, en tout cas au représentant ci ki nga xamante ne moom mooy le président de la République hmm. donc kay ñoom daanaka ñoom seen i kàddu day waroo à chaque fois ak li nga xamante ne moom mooy seen i seen seen i jëf. waaw euh, naka nga gisee aussi jugement wu Bougane leaderu mouvement gëm sa bopp ñu war ko juger euh, ci 30 octobre euh, bile fële ca Tambacounda lan ngay xaar ci jugement bi. li ma ci xaar bariwul mooy na yoon def liggéeyam. na nga xamante ne noonu lañ koy waxee man mënumaa weddi sama bopp démb mënumaa wax wax démb ñëw xëy weddi sama bopp tey man gawma loolu bi fii Macky Sall nekkee nekk njiitum réew Bougane am na lu mu fi initié mu tuddee ko tànk waaye tibb tànk boobu kenn musu ko cee dóor kenn musu ko cee saaga kenn musu ko cee xoqatal liñ ko mus a def mooy dañ ko bàyyi ak sagoom muy def la nga xamante ne loolu moo ko saf waaye nag àndoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi tey jii mu mu jàppale leen anam bu ne ñoom lu ne ñu taxaw xeex ne ñoom démocratie amul ci réew mi te boobu nag wax dëgg yàlla démocratie ñàkkoon na de ci ñu waxee ñoom waaye moom de wax dëgg yàlla amoon na jàmm ci jamono yooyu parce que kenn sonal kenn xoqatugul waaye nag léegi bu fekkente ne lii am na nag ñi nga xamante ne ñoom la ko seqaloon dem ñoom ñoo ko teg lii ci li mu wax daanaka loolu dañuy wax ne ñoom xam naa seen biir bu ñu waxtaanee daañu juboo waaye nag leneen li nga xamante ne moom laa ci wax mooy yoon na def liggéeyam parce que lii nu mel munu fee munuñ continuer di ko bàyyi muy continuer di continuer ndax gis nga suñu yi nga xamante ne moom mooy suñu njiitum réew le président de la république muy père de la nation at bi may ko ko ñàkk ko may il est le père de la nation ndax moom la Séné moom la sénégalais yi fal nañ ko nangul loolu munuñ maa comprendre président de nekk ci bërëb nga xamante ne su déplacé wu maanaam république moo déplacé wu nga bëgg taxaw bëgg a am loo xamante ne da nga koy def nag su di forçante moom ay baara yu mel kenn xamul leneen li mooy suñu force de défense et de sécurité yii muy policiers yeeg gendarme yeeg ñeneen corps paramilitaires yeeg militaires yi dañ leen war a wekk jox leen cër munoo fi nekk nga naan da ngay xëccoonteeg ñoom di buuxanteeg ñoom comme ni ko nga xamante ne Ousmane Sonko dal na fi def nga xamante ne traité woon na leen sax lu ne tey aujourd'hui tey police boobu tey ñu ngi si seen i disposition gendarme bëri mu ngi si seen disposition yeneen corps militaire yeeg paramilitaire ñu ngi seen disposition donc donc bu fekkente ne da wut fexeel ba sa comportement bi nga xamante ne moom ngay wone wala kàddu yi nga xamante ne moom ngay jibal na doon loo xamante ne lu méngoo laaj bés boo demee ba nga xamante ne yàlla daf nañu déclaré voilà euh, beneen euh, laaj rek jëm ci livre euh, sur l'indépendance de la Casamance bi nga xam ne benn historienne française bu ñuy wax euh, Sévérine Awanango euh, d'Alberto moo ko daal di bind tuddee ko l'idée de la Casamance autonome possible et dette normale de la situation coloniale au Sénégal naka nga gisee livre boobule. njaqare naqar ak gàcce laa ci am ndax tey barki démb boo njaay Ousmane Sonko mi ngi naan day euh, njukkal day delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom ñooy les blessés de guerre fàtte na ne blessé de guerre yooyu yu ci bari ñu ci bari ci théâtre d'opération la leen dalee ca Casamance ak feneen fàtte na ne Casamance bii ñuy wax ne tey kii di livre bii nga xamante ne moom la ñuy bind fàtte na ne blessé de guerre yooyu am na ci seen i ñoom ñoo xamante dañ cee ñàkk seen bakkan bu ñu xoolee ci kusli bi xool ci li nga ki nga xamante ne tey moom moo moom moo nekkoon l'adjudant euh, Gaajo bi nga xamante ne moom mooy moom mooy victime bu njëkk ci problème mu Casamance en 1983 c'était benn benn 8 octobre la woon ñu xool ci ñooñu ñëpp ak ñeneen ñi fa ñàkk seen bakkan yëpp ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy population yi nga xamante ne dañoo déplacé woon dawoon xeex beeg yu nu mel nga xam ne tey aujourd'hui recasement la ñuy wax reconversion ak réinsertion mu doon situation boo xamante ne Casamance tey li ñu soxla tey ci ak Sénégal gi yëpp soxla ko mooy naka la ñuy def ba Casamance gën faa dëgër gën faa sax population bi gën a seen biir ak Séné Sénégalais yëpp gën a déggoo seen biir jàpp na tey Casamance tey su ab Occident jógee fële nga xamante ne Sonko yàgg nañ koo dégg ci biir mu ñu wax il faut que la France nu nangam sàngam il faut que les Occidents nous nangam sàngam te nga bëgg bàyyi un Occident tey euh, wala wala kenn ku bokk en tout cas ku dëkk ci Occident jógee ci Occident bi ñëw ne moom daf ñuy waxal ñi nga xamante ne moom mooy suñu moom mooy suñu suñu suñu réew li ci xew ki war a am jàmm ak ki warta am jàmm jàpp naa ne loolu gàcce la. Hmm. te ñu ngi xaati autorités yu bees yi nii muy ku ci ku ci jiitu nag moom mooy le président de la république. Ima Ilimanu Diori di Ousmane Sonko le chef d'état-major général des armées ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp di leen ñaan di leen wax ne ouvrage bii waxuma la sax publication bi nga xamante ne moom lañ ko moom lañ ci am yéene waaye presse bi sax war koo relayer ba nga xamante ne dañ ko dañ toog heure bi di wax ne euh, Casamance ak yu parce que li ñu am Casamance jamono jii nga xamante ne euh, jàmm ji am na fa. nga xam ne la général Kandé liggéey na fa liggéey bu mucc ci ayib ay ñoom RAB jaar nañ fii ay le colonel Diallo bi nekkoon premier bat ak ñeneen ay ñoom Adama Diop le colonel Adama Adama Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yeneen kilifa yoo xam ne mënu ma leen wax ñoo xamante ñu ci bëri jaar nañ fi nga xam ne ndem si yàlla colonel Intap formé na fi ay ay yu bëri ñoo xamante ne jot nañ fa jaar classe 97 bi 98 bi 92 ñooñu ñëpp tey nekkoon ay ñoo xamante ne tey jii situation bi nga xamante ne Casamance dafay am jafe-jafe yooyu ñu wane ci xarafte xarañteef bu am solo tey aujourd'hui jàpp naa ne waroon nañoo wu tey toog di wax waxu problème Casamance ba cay sulli yu nu mel ba nga xamante ne mën na am njeexitali boo xamante du amul benn njëriñ réew mi en tout cas dinañu plongé waat ci beneen instabilité boo xamante ne kenn kenn ñaanu ko yàlla. dernière question euh, Cheikh euh, moom mooy kaw Déthié Fall noo ko gisee finalement euh, Déthié Fall jóge na ci coalition Sàmm Sa Kàddu bi nga xam ni sax moo ko initié ak ñoom Barthélémy Dias dem rejoindre en période en pleine période électorale Pastef naka nga gisee acte bu Déthié Fall. man de Déthié ma ciy wax rek mooy dama ne woon du ci sori waaye gàcce laa ci am ak mbetteel. ndaxte Déthié mi nga xamante ne dañu yaakaaroon ne dana am rôle bu am solo boo xam ne dina ko jouer ci opposition bi waaye également mu doon koo xamante ne dana ci nekk un acteur bo acteur boo xamante ne dina mën a yombal diggante opposition bi ak nguur bi ci li nga xamante ne moom mooy pencoo waxtaan jokkoo ngir mën a trouver ay solution ci réew mi waaye Déthié Fall moom tey bu defee lii nga xamante ne dañ ko doon bañ ci ay jamono ba nga xamante ne dañu doon wax ne am na ku jëlee woon ay parrainage Pastef jël ko yóbbu ko ci Macky Sall ak yoon loolu dafa am lu muy firnde tamit loo xamante dafay wax dafay permettre population bi ñu gën a yeewu nañ gën a yeewu ñu xool politiciens yii ñu jiite ak ñi ñuy bëgg jiite lan lañ fi am ci programme lan lañ fi am ci worma boo cër boo xamante ne war nañu ko mën a won référence bu luñ ba yan genre référence lañ mën nekk ngir ñu mën leen am confiance moom mën leen di li nga xamante ne mooy réew mi waaye li ma ciy nemmeeku mooy te di ko population mooy les partis politiques authentiques yi ñu gis nii wan nañ ne ne carrément ne ñoom dara soxlu leen lu dul seen i intérêt personnel seen i intérêt bopp dong nga leen soxal waaye intérêt population amul ñu benn njëriñ ndax à chaque fois que bu ñu demee ba gis seen seen intérêt c'est menacé war nañu xalaat kenn ay réduction des comptes war nañu xalaat ne war nañu am ministre wala directeur général ak yu ñoom benn jeune ngir cuub li nga xamante ne moom mooy seen drapeau. waaye dama cee profité rek di leen wax ne ah. Mhm. nañu xool li nga xamante ne moom mën la mën lañu leen proposer ay programme yoo xamante ne yu am solo la ñu soxla ay bopp yu bees yoo xamante ne du ñu am assemblée nationale ba dem di far ci nguur wala di far ci opposition ci loo xamante ne amul ba amulul njëriñ benn njëriñ man daal message boobu laa leen lancé ci li nga xamante ne moom moo xew ci jamono ji. voilà jërëjëf Cheikh Konaté maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga mm. tontu suñuy laaj. jërëjëf jërëjëf. may fàttali ni Cheikh Konaté yow yaay président association des militaires libérés du Sénégal nekk conseil municipal ci Sakal candidat de la coalition Nafoore Sénégal jërëjëf euh, Cheikh Konaté.